wa yaa man arsala riyaaha nushran bayna yaday rahmatihi ilaahi salli ala sayyidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaaba ridaa ilaahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba charri wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحب بكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euh, mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci àjjuma ji fu waay mën a ne di ziara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara ñi ci hôpitaux yi te wéradi yal na leen yàlla delloo seen sago waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yal na leen ko yàlla yombalal bi ahsanil wujuhi wa ma dalika ala allahi bi aziz mbokk yi ñu ngi dellu siwaat kalaadati fi kulli yawmil jumaa ajjuma ju nekk ñu fas yéene ànd ak yéen fi barnaamijikum tafsirul ahlaam eh, defe naa am na ku nekk ci ligne bi waaye dina ñëwaat xëj na ligne bi xaw a jafe-jafe am jafe-jafe eh, wa nantadirukum fi xalqatikum haadihi eh, tafsirul ahlaam ala kulli xaal nahnu fi intidaarikum bi haadayni raqmayni xaalan isa tasaltum bi naa inchaa allahu sa tajidunana xaadiran mbokk yi ngeen ànd ak ñun ci 88 628 14 14 04 05 salaamaaleykum wa rahmatullah salaam allo sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mhm. ngeen dafa coono alhamdulilah mbaal dafa am ay gént yu ma jaaxloon waaw léegi moo tax ma naa wootee pour la jëpp waaw man daal dama mës a gént. Mm-hmm. bi ma ëmbee sama ñaareelu doom. Mm-hmm. dama ëmb dama gént gént ay picc. ay. picc. ay picc. waaw ñu nekk ci barigo. Mm-hmm. ma ñëw. fekk ci barigo barigo ma ñëw fekk ñu def ci ay picc ba mu fees. ñu. def ci ay picc ba mu fees. picc yi fees si daal. waaw ma ne waaye yéen lii ngeen dugal fii te lekkuñu naanuñu ngeen jël leen ngeen dugal leen fii am benn waay bu ma ne. tànn mhm. ci loo mën a dundal nga jël ko te nga noppi. ma tànn ci ñett mu ne ma ñett yi mën nga koo dundal ma ne ko mën naa ko dundal mu ne ma leer na ne mën nga ko dundal ma ne ko leer na ma ne mën naa ko dundal du ñu xiif du ñu mar mu ne ma jëlal nga dem. Mm-hmm. ma daal di jël ñett yi daal di dem affaire bi nag tëg sama bopp loolu yàgg na ndax fi ñu doon boobu maa ngi am sama ñaareelu doom te fi ñu am naa ñeenti bant macha allah. Mm-hmm. deuxième bi. Mm-hmm. ci kaw tali. gis oto buy ñëw oto buy ñëw def di def daal sob daal. bi mu oto bi yegsee rek man dafa mel ni ma ci kaw. ma sut ma sut oto bi man. oto bi daal di romb. ma daal di cëpp ñu ma santal yàlla bu baax a baax ma ne alhamdulilahi rabbil alamin mhm. voilà bi ci des tamit. Mhm. sama troisième doom bi ma ko ëmbee. sama mhm. ki ki gént nii di dox gis gaynde gaynde mu ngi riir na wut si ma ma jaxasoo tiit tiit tiit ci kaw gént gi noonu benn meer ne ma sama doom fii de mënoo daw yow nga toog rek nga xaar yàlla ba mu ñëw. Mhm. ma ne ko man de damaa xam sax bu ma dawee fan ngay jaar. te ñetteelu doom bi lan la. jigéen la. Mhm. ma ne ko man de damaa xam sax bu ma dawee fan lay jaar mu ne ma ne ko juddal yàlla ma taxaw fi ma taxaw naan laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah gaynde gi ñuy tëdd samay tànk. maire mhm. bi ne ma waxal alhamdulilahi rabbil alamin ndax da ngaa ñëw fekke gaynde gi suur. maanaam mm-hmm. ne alhamdulilahi rabil alamin yooyu nag bokk na ci yoo xam ne daf may jaxase léeg-léeg damay toog di ko xalaat xam nga mm-hmm. affaire bi du sama bopp daal man nag damay faral di gént mais li may gént du ma ko fàtte mm-hmm. ma ko fàtte mais nag dama mosul nag comme nii ma amee tey ji chance jot la nii mosuma ko am moom moo tax ma ne naa profité wax la lii nga xam te nii daal moom xaw a jaaxal man samay gént li ci des tamit gént naa ñu nekk ci ndox géej géej jékki-jékki rek mu def benn jant bu tàng jër ci biir ndox mi. Hmm. ci biir ndox mi de lii ma lay wax nii ci jant bi. Hmm. ndox mi daal di jékki jeex jeex tàng nekk benn genre jant bu xaw a tàng noonu ndox mi mel na géej fer daal. Hmm. waaw yooyu daal façon gént yooyu daal bokk na ci loo xam ne daal ut na sama bopp juróom. baax na ci ñëw léegi incha allah. Euh, ñu jël keneen ki topp ci ci ki ci topp salaamaaleykum wa waaw soxna si ñu ngi lay ziar. waaw maa ah, benn gént. Mm-hmm. waaw sama jëkkër moom nee dafa gént nekk ci biir ñax bu gudd mais ñax bi dafa vert nee ñax bu gudd la dafa vert mais am na beneen ñax bu gàtt. kan moo ko gis sa borom kër allo. waa sanaati bi dalika xaalan salaamaaleykum wa rahmatullah allo. allo. waaw. allo. allo. da ngay wàññi télé bi ñu déggante bu baax. waaw. waaw bismillah. allo. waaw ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ bi. waaw sëñ bi na nga def. sant yàlla baax. na ko yàlla dolli. amiin yaa ilaahi. Euh, man damay laaj benn gént. Mm-hmm. waaw dama gént euh, biig ah dama gént dem ci sama benn mbokkum taalibe bu ma woowoon euh, ci xew bu muy xewal mu mel ni daal gàmmu la. Mm-hmm. waa bi ma demee ñu ànd nekk ci biir mbool ba yàgg ci biir kër gi ba yàgg mu ne ma nan dem julli ji mhm. ak sa xarit bi waaw maa sama xarit mu mel ni daal di nuy mu ne ma nan dem julli ji mhm. waaw bi nu demee ñu julli ba noppi mhm. waaw bi ñu jullee ba noppi mu jox ma micro muy wax mu ne naa ko jottali. Mm-hmm. waaw bi ma koy jottali nag bi ma jottalee ba mu yàgg foofu la foofu la daal yeewu dab ma ma daal di yeewu ci guddi gi waaye li ma ci jaaxal mooy jottali bi daal micro bi ak jottali bi. Mm-hmm. voilà loolu laa bëggoon a. baax mm-hmm. na dinañ ci ñëw léegi. sanaati bi dalika xaala ñu jël ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam papa. waaw soxna si ñu ngi lay. ziar maa ngi lay na yàlla nangu ziar alhamdulilah. bisimilah. Mm-hmm. allo. allo. waaw dina ñëwaat ci kanam tuuti. ah dem dem seeti sama benn ah? ma dem. allo. waa maa ngi lay dégg. waaw da wàññi sa télé ndax ñi déggante bu baax. waa maa ngi lay dégg télé bi wàññi naa ko. waaw bisimilah léegi nag bu ma ko géntee nag sama mag bi mel ni comme koo xam ne faalewu ma ci gént gi léegi nag man ma sa mag bu góor. sama mag bu jigéen. léegi mm-hmm. moom mu dem sangu ji léegi ba mu demee sangu ji man ma dox ba may dox rek am benn paa bu ma gis gi paa wu séeréer mais paa bi dafa mel ni lu xaw a màndi mu ma soxna si foo jëm ma ko mu ne ma soxna si fii nii jaan yaa nga fa su ma waxee loolu mu mel ni sama yaram bi dañ koo yëlëbal bi ñu ko célébrer sama yaram yi di génn ay sax saxu mille pat ba mu génnee saxu mille pat après ma gis moom mu ngi ànd ak beneen xale léegi man ma ànd ak paa bi léegi nag noonu ma ma kii ma gis kii nu lu mel ni comme gerte sax bi lenn ni comme gerte ma génne tëj xolitu gerte bi génne benn doomu gerte jox xale bi mu koy lekk mais yaram bi yëpp daal mu ngi am ay sax. yaramu kan la sa yaram wala yaramu kan la waaw man sama yaram bi sama yaram bi génne na ay sax sama yaramu doom bu jigéen bi tam mu génne ay sax. mais perte bi nag ci mille pat la def saxul mille pat yooyu noonu moom la def. Mm-hmm. waaw noonu la def papa allo. waaw. waaw noonu daal la def ci biir gént ma tiit nag daal di jóg nag mm-hmm. na dinañ ci ñëw léegi incha allah. ما زلنا حتى الآن في انتظاركم السلام عليكم allo allo. Ah, waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñooy delloo ziar kooku ñuy ngi ziar bu wér. alhamdulilah yal na ngi ziar. waaw man dama am gént bu ma géntoon moom laa bëgg ku ma ko leeralal. waaw mm-hmm. ah, dama gént euh, benn jour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moog sëñ gis euh, yonent bi. waaw moog sëñ Fallou. Mm-hmm. mais bu ma ko géntee dama gént après mu mu tekki jaaro bi mu takkoon ci loxo. Mhm. takkal ko sama soxna te bi ma koy gént man rek maa toogoon mais bi mu tekkee jaaro bi sama soxna la ko takkal. Mhm. waaw te man amaguma soxna léegi nag gént bu loolu jaaxal na ma trop. kan moo def kan moo ko takkal. yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Mhm. waaw te man waaw loolu laa bëggoon ko ma ko leeral wax dëgg yàlla. tey amuloo soxna. waaw. waaw. waaw baax jërëjëf. baax na jërëjëf. waaw nga dimbali ma si nag papa loolu laa bëggoon ko ma ko leeral. incha allah dinañ ci ñëw léegi. jërëjëf jërëjëf ñu àndoon. jërëjëf incha allah. ma zilna xata al aana fi intidaarikum salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. bismillah. yaa ngi si jàmm. sant yàlla. waaw man dafa am benn gént bu ma gént démb ci guddi dafa ma mm. jaaxal torop. Mm-hmm. léegi dama gént. Mm-hmm. taaw bu jigéen daal. Mm-hmm. ay seex juróomi doom. def na ay góor. mu am ñaata doom. juróomi seex yu góor. waaye yëpp nag góor la waaw ay seex yu góor léegi. dama taxaw a jaaxal nag. dafa am doom ba pare rek daal di génn nag yëre bi sol na yëre de mais ci suuf. wodduwul dara dafa génn dafa génn. dafa am doom ba pare. Hmm. mu sol na mbubb de mais ci suuf yaa ngi wodduwul sër deful dara. Hmm. waaw. Hmm. waaw gént bi daal loolu moo ma jaaxal man. baax na dina ci ñëw léegi allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziara bu baax. yéen a ngi yàlla boole yool bi. alhamdulilah. alhamdulilah dama bëggoon dugg ci émission bi. waaw bisimilah. waaw euh, man damaa géntoon direct euh, la bëgg ànd feebar. Hmm? dama géntoon euh, benn dafa am benn góor gu ma mos a joteel. dafa am benn. benn góor gu ma joteel. benn góor gu. ma sa joteel léegi damaa gént ñu ni ma. Hmm. Euh, mu yore ay lu mel ni suuf def ko ci benn weer ban. Hmm. waaw léegi ñu ni ma nag ban boobu yow la ciy liggéey liggéey bu bon. Hmm. waaw. allo. waaw léegi ñu ni ma ban boobu nag man la ciy liggéey. waaw ci lan la ko def. waaw. ci lan la ah, de am na génn góor gu baax nag tam benn xam ne góor gu baax la. ban bi ci lan la ko faatu mais ko gént lu bëri. allo la ko def ban. bi ci lan la ko def laa wax. ci kaasu weer la ko def. Mm-hmm. allo. waaw bisimilah. ci kaasu waaw. aywa bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg. léegi euh, dama faral di génn tamit sama benn maam bu baax bu faatu. sama bu góor hmm. euh, dama koy gént lu sa maam bu góor wala bu jigéen. allo. waaw xam naa réseau bi baaxul soo ko may woote daal sori quoi. waaw fooy wootee ñu jégg baax. fooy wootee. sa maam bu góor. waaw sa maam bu mhm. waaw xam naa ne fi mu wootee moo sori moo tax dégg dégg dégg bi xaw na xarit salaamaaleykum waaw bisimilah. waaw sëñ sant yàlla. di ziar bu baax a baax. yàlla nangu ziar. alhamdulilah ñu yàlla nangu. alhamdulilah. Mhm. Ah, woote Kébémer. fooy wootee. Kébémer. Hmm? Kébémer Kébémer ah Kébémer. Ah, man damay def commerce mais damaa ma gis. damaa tëdd bu guddi euh, ma gént nekk sama biir place. nga jëli tisbaar. non ma nekk sama biir place. nga ñëw. ma nekk sama biir place. ah nga nekk sa biir place. Mhm. Euh, ma gént nekk ci ay dox. lu mel ni. maa gént am na solo ñu ne nekk ay tolof tolof man wax dëgg loolu maa ko gis. waaw. ni koy topp. allo. allo waaw. waaw nga ne nga nekk sa biir place. Euh, mu am lu la feeñu. waaw moom koy wax loolu. waaye nag boobaa léegi nekk ci biir wax nekk ci tolof waaw. Mm-hmm. waaw. beneen dama am su ma daan jëflante ci wàllu bagage. koo doon bëgganteel. waaw non ku ma ne woon ci ku ma nekkaloon ci wàllu bagage jëflante ci wàllu bagage ma. Mm-hmm. léegi su ma tëjee dugg di ma am lu ma fekk ne ma boo dugg sa bopp day di nga am ba ma kooku jafe-jafe. Mm-hmm. waaye ma ne ko ma am kooku ñoo xale si mu ne la boo jógul. boo jógul ci sa bopp da nga dem ba xam ne wax yaa kooku. Mm-hmm. waaw boobaa léegi gis naa ko ko waaw ci ñëwaat incha allah ñu jël keneen kii ci topp ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, maa ngi en wala ah allo waaw waaw ñu ngi lay déglu. ah, ah ma ne. waaw. Eh, dafa am lu ma bëggoon a si ñaari gént yi ma bëggoon ngeen firil ma ko. waaw. mooy eh, damaa gént ne suma eh, papa bu mu gaañoo yàgg na ça fait plus de dix ans fu mu toll nii l'autre jour damaa gént mu mu ñëw wax ak man damay laaj trois cent trois cent mille. Mm-hmm. fekk man ma yore cent cinquante mille rek bon mu ne ma kon baax na garaawul dem. mais 150 000 mu jël ko mais affaire bi xaw ma naqari parce que li ma yoroon li ma laaj mu xaw ma naqari trop. mu laaj la 300000. waaw mu laaj ma 300000. nga jox ko ñaata. fekk man ma yoroon cinquante rek laa yoroon foofu. Mm-hmm. ma ne ko papa xaaral ma doon utal yeneen 150 complété ko ma baax na baax na dem. Mm-hmm. mu doon lu ma xaw a naqari tuuti. Mm-hmm. deuxième gént bi mooy 11 jours dama xëy di liggéey. waaw dina àndaat ak ñun ci kanam àggale li des ci gént yi sa yaati ma baqa min al xulmi wa nahnu ala kulli xaal ma zilna fi intidaarihi ala eh, ala kulli xaal in kaana min al mumkin an yattasilana xaalan inchaa allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu jëkk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sëñ bi ñu ngi lay ziara. nooy def ay sëriñ Ba man Umar laa soxla. ah. Umar laa soxla. alhamdulilah bisimilah. sa numéro sa numéro laa soxla. ah numéro bi nga soxla. waaw. waaw bul coupé léegi dinañ la ko jox ci ligne bi incha allah. d'accord. shukran wa nahnu ma zilna xata al aana fi intidaarikum ala kulli xaal mbokk yi ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne seeni borom yónnee nañ ko fi di ko laaj wa yuriduna bi zalika bayaanan waadix xaalan incha allah. Euh, mbokk mi nee dafa gént ay picc yu bari yu ñu sotti ci biir barigo nee na mu ñëw ñu ne ko jëlal li nga ci mën a yor li nga xam ne mën nga koo dundal nee na mu jël ci ñett nee na ñi laaj ko ndax mën nga dundal ñett yooyu mu ne waaw at tuyur fi daaxili barmilin min al baramil والبرميل مملوء بالطيور وهي لم تأخذ من من الطيور سوى ثلاثة طيور على كل حال gis nga mbokk mi li ko jaaxal mooy picc yi ci biir barigo bi ñu ne ko jëlal ñett yi nga mën a dundal mu jël ñett ne mën na leen dundal picc yu bari njaboot guy tasaaroo la donte duñu tasaaroo ñoom ñëppit dina am ñu des ci biir kër gi waaye dina am ñoo xam ne ñi ala kulli xaal ñi dañuy jaar ni màggee ñi jaar ni ku ci nekk li kulli waxidin min abnaiha wijhatu nadarihi fi lxayaati euh, mbokk kenn ku ci nekk ci say doom su màggee fa muy nekk ak fa morom ma du nekk di doon euh, dafay nekk am rayni muxtalifayn ala kulli xaal kenn du nekk ak sa morom ci benn béréb kon ñu bàyyi ci xel amaa nag liñ ko wax ndax mën ngaa dundal mu jël lu tollook ñett eh, li muy tegtal ne mooy ala kulli xaal na bàyyi xel ne dina am njaboot gu barkeel te njaboot googu dinañ amee njaboot yooyu njaboot amee njaboot ba mu gën a yaatu yaatu waaye njaboot googu lañ ko wax ne ko est-ce que mën nga dundal eh, kam wala boog ñaata nga mën a dundal Euh, beneen bi ci tegu nee na gis na boppam fi charia ci kaw yoon bi euh, mu am oto boo xam ne ci la wàccee nee na ginnaaw loolu it euh, nee na ñetteeli doomam la gis bi mu ko wasinee it mu am mu gis gaynde mu bëgg a daw mënul daw ñu ne ko jaru ngay daw muy tudd yàlla gis nga ñaareelu gént bi mooy oto bi al mar'atu ida nazalat min sayaratin aw xarajat min alsayarati wa hiya tamshi ala fa dalika tadullu ala suui tafahum bayna al mar'ati wal mar'ati gis nga génn ci oto di dox ci suuf li muy tegtale ñàkk déggoo indi diggante jigéen ak moromam jigéen ñu bàyyi ko xel muy lu jar bàyyi xel amaa nag ru'yatul asad fil xulmi qulna dalika miraaran ru'yatul asad fiiha xayr al asadu xayrun wa rahmatun wa fatxun wa ijaaba min kulli daawa ala kulli xaal gis gaynde xéewal la yiw la yokkute la ci fànn yëpp donte songu la gaañu la defu la dara amma zikrullahi fi leyli fa dalika taqaddumun kabir fi xayaati l insan gént di tudd yàlla ci ci gént yiw la sawaan an taqul laa ilaha illa allah aw sawaan an taqul alhamdulillah kilahuma ala xaddi sawa moo xam da ngay tudd wax laa ilaha illa allah wala ngay sant sa borom benn la xéewal la yokkute la Euh, mbokk mi ne dafa gént gis jant bi ci biir ndox moo xam ne bi ndox mi dafa mujj ngeer ba dara desatu fa loolu li muy tegtale mooy da ngay am alal joo xam ne da ngay jékki-jékki mu seey sa loxo dootoo ko gisati nga ñàkk ko muddatan tawilatan nga ñàkk ko ab diir bu gudd ba jëmmi jamono waxuñu du dellusiwaat waaye daal di ko ñàkk di ñàkk alal joo ne ji yaa ko moomoon mooy assams allati fi daaxilil maa xatta jafal maa fa dalika taabun wa diqun shadid ala kulli xaal jant bi wowal ndox mi nag noonu ngay ñàkkee dara ci sa alal allahu aalam kañ lay dellusiwaat ak nu muy dellusiwaatee waaye na ci bàyyi xel euh, bi ci mbokk mi ne gént Euh, gis ñax bu gudd ñax bu gudd nag fa la yem àggalewul li ci des ñax nag bu gudd bi bu dee bu gudd bi te naat baax na ñax mu tooy daal moo gën alal asax ci li gën a wér ñax mu tooy moo gën bu wow ñu bàyyi ci xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént dem ci ndajeem diine lu mel ni conférence wala ay jàng mu ànd ak benn xaritam ñu julli ñu dugg ci benn jàkka julli nee na ba pare mbokk mi wala boog xarit bi jël benn micro jox ko ko nekk mu jotal leen ko ay waxam gis nga asalaat qul naa dalika miraaran iza salla al insana fi masjidin aw fi makanin axar doona al masjid fak asbaxat hadihi salaat salaatan kaamila fa fiha xayrun wa fiha yusrun wa in lam takuni salaat kaamila fa ma fiha xayr gis nga julli ci gént su matee dara manqué wu ci xéewal la waaye su amee ay dagg-dagg wala ay xat-xat wala ay manquement dulu lu gën euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa génte jël microfone jox ko jox ko xaritam bi pour mu jottalil ko ay waxam gis nga micro suñ la ko joxee gént ne la jottalil samay wax yéen ñaar ñi seq mbir mi ki ñu jottalil ak ki bëgg ñu jottalil ko yéen ñaar kenn ci ñoom mi ngi soxaale wéri di yaram nañ ci bàyyi xel wax ju ñu jottali du wax ju ñu jottali wéri di yaram la bu nit ki di soxe ci dundam allahu aalam euh, yumkin an yakuna maradan xafif yumkin aidan an la yakuna maradan xafifan mën na nekk feebar bu woyof mën na nekk it feebar bu sonal borom wala boog borom di ko sooxaale di dem di ñëw te teew ko doxi soxlaam waaye micro bi mu ko jox ne ko jottalil ma ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar ñooñu lahu maradun fi jismihi am na mettitu yaram muy sooxaale nañ ci bàyyi xel beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént sëram moo gis benn sëriñ ba si yàgg ñëw ci biir loolu nee na mu gis ni daal yaramam mi ngi génn ay sa sax ak yaramu doomam daan diidaan fil jismi sax yu génn ci yaram dafa am ñaari bayaan dafa am ñaari façon ñu bàyyi ci xel sax buy génn ci sa yaram di daanu ci suuf jafe-jafe buy wàññeeku la su fekkente ne dafay daanu dafay génn sa yaram di delluwaat sa yaram feebar la bu nekk sa yaram boo xam ne bii tuuti mën na ci dañ mën na ci dañ mu des lu bari nañ ci bàyyi xel euh, sawaa ci moom la wala ci doom ji benn la na ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, wa raa aydan sëriñ fàllu mbàkke fil xulmi nee na gis na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis Serigne Fallou Mbacké gis nga mbokk mi daal gis nga ñaari mbir yoo xam ne yi eh, yiw yi ci am sax xamoo ko gis Seydina Muhammad aaju gu faju la gis Serigne Fallou Mbacké aaju gu faju la kooku nag moom la waajuram toppoon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg di ko tagg ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jagleel ko li mu ko jagleel borom xoqal bukaa ala saadaati l amwaat tabkil araadi alayhim ka sawaad borom asiru maa al abraar xiina asir wa zanna al ida anni hunaka asiru hada huwa eh, cheikh ahmad bamba wa huwa walidu eh, sëriñ fàllu mbakke nañ ci bàyyi xel ruyatuhuma xayrun rawaat le na nag bu mu jëkkee gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy sayyiduna muhammad nga xam ne ru'yatuhu barakatun wa ru'yatuhu xayrun wa ru'yatuhu fatxun wa ru'yatuhu xadaau xaajatin yonent sallallahu alayhi wa sallam gis ko law kunta maridan sa tajudu shifaan soo wéradi woon di nga wér soo nekkoon ci xat-xat di nga ci génn soo nekkoon ci jafe-jafe yàlla dina ko seral Euh, lépp lu mun a fekk ci mushkila min al mashakil yàlla dina la ko teggil ala waaye li ko gën a jaaxal nag mooy jaara bi mu génnee mm, mu jox ko soxnaam te moom nee amagul soxna loolu li muy tegtale mooy yow mi nga xam ne bi eh, yow yaa gis loolu yàlla dina la may soxna su baax su yaatu su am diine fonk lislaam yàlla it dina la ci may zurriyatan tayyibatan wa ma zalika ala allahi bi aziz yàlla de dina la ci may njaboot gu barkeel waaye di nga am soxna su baax ku bëgg diine ku yaru ku dal ku teey ku yàlla teg ci siraatan mustaqiman waaye di nga ci amit ala kulli xaal njaboot gu barkeel muy zurriyatan tayyiba wa ma zalika ala allahi bi aziz bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina la ko defal ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu bàyyi ko xel muy la am solo lool eh, mbokk mi gis loolu ci géntam beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént gis eh, doomam doomam mu am juróomi doom doom ju am juróomi doom waaye li ko jaaxal nag mooy dafa solul yére bu jot juróomi doom ci gént law labisat sawban jamilan ah, law labisat sawban tawilan la kaana xayran anha baada xusuli xamsati abna su soloon daal yére bu jot am juróomi doom moo gën waaye juróomi doom daal te yére bu gàtt solul yére jafe-jafe la koy jural jafe-jafe àdduna la koy jural xat la koy indil mën na ko indil xatta ba mu ci wéru di yaram bu muy sooxaale wa ma zalika wa ma fi zalika xayr du lu gën na ci bàyyi xel mooy am juróomi doom ba pare def yaramu neen tajidu mushkila min al mashakil aw xus sobaat fi xayaatiha xat-xat la koy jural baaxul na ci bàyyi xel bu baax Euh, beneen bi ci tegu ñu bàyyi ci xel mbokk mi ne dafa gént am ku muy jàppanteel kon xam ni kaal jubawuñu nee na mu mel ni dafa jël suuf def ko ci kaas suuf su ñuy def ci kaas nag baaxul baaxul du ngeen juboo baaxul bu ngeen jubawul Eh, nee na gis na maamam foofu la yem li ci des àgg jotuñu ko mën a àggale ba mu gën a leer keneen ki ci topp mbokk mi ne dafa génte di commerce ci mu gis ci palaasam eh, ku ko wax ne ko boo jógul sa bopp du baax maanaam yaa ngi yaa ngi ci ay jafe-jafe mu gisit ki nga xam ne ki moo koy dimbali nee na ci ay bagages mu waxaat ko loolu ne soo jógul ci say mbir du baax gis nga atijaara ad-du'fu wal mashaqqa wal faqr wa diiqu shadiid fi l-xulmi yataxayyaru faraxan wa suruur wa najaax gis nga mbokk mi gént ñàkk amoo dara yor bitig bitig ba daanu marchandise ma yàqu la nga yaakaaroon jotoo ci jàppal ne at mu bees mi di ñëw yàlla ci mbaaxam dina la ci defal xéewal bu yaatu soo yoroon place defar ko ba mu baax te xam ne palaas boobu yàlla dina ko barkeel may la ci ay xéewal ubbi la ci ay manoore yu mag ci at mu bees mii di ñëw kon na jàpp ni daal gént bu baax la gént al alfaqru ñàkk day soppaleku nekk am am jafe-jafe day soppaliku nekk yiw li daalika loolu tax ñu naan alfaqru yaru xayran wa taabu wal mashaqa kazalika yataxayaru faraxan wa surur fi xayaatil insaan kon nga gis ni daal am na solo lool gént ñàkk gént amoo dara gént yor bitik bitik ba yàqu jàppal bitig bu baax te xam ne xéewal a ngi ci bitig bi ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu nag mbokk mi neen dafa gént euh, nee na mu gént waajuram wu góor boo xam ne bi xeej na allahu alam mi ngi dund wala dundul kaanahu raxala ila jiwaari rabbihi ne ni dundatul mu ne ko dafa soxla ci moom trois cent mille nee na mu ne ko yor ma cent mille cent cinquante mille laa yor nee na daal loolu daal moo ko jaaxal ci génte gi lool gis nga mbokk mi dañ lay digal nga jël xaalis bàyyi xarit su fekkente ne miraas suñ ko in in huwa raxala ila jiwaari rabbihi su fekkente ne génn àdduna miraas mi bu yeexee miraas leen ko lu mu fi bàyyi ci minal euh, minal amwaal ci alal ngeen toppatoo ko bàyyi ko xel wasaayaa yi mu fi bàyyi muy ndenkaay it ngeen bàyyi ko xel te ngeen di ko ñaanal génneel ko sarax sarax bi ci gën mooy nit su génne àdduna sopp nañu ngeen def ñeent fukki dànk ak benn ci nàkk dugub donc bu nekk nga jàngaale ci benn qul wallahu ahad di ci amaale it ñeent fukki qul wallahu ahad ak benn mu nekk sadaqatan wasila muttasila ila alladi raxala ila jiwaari rabbihi aw ila allati rabbiha wala boog mu nekk ko xam ne kii ku jigéen la wala ku góor la yàlla dina ko jotali euh, ci loolu nga xam ne li mooy sarax biñ ko génneel du tee ñu jël ñaar ba ñett ànd ak yéen ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 00 221 33 841 22 99 waaw su ko defee xam naa ni euh, dafa mel ni ligne bi dafa xat. Euh, nit ñaa ngi ci ligne bi waaye liñ bi moo xaw a jafe jot waaye du ñu def lu dul bàyyi xel waaw ñu jël kenn ki ci ligne bi door a door a tàggatoo ak euh, mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo allo allo waaw xam naa liiñ be jafe rek ñu ngi ciy jégalu lool ñu ngi jégalu ci xat-xataay ligne bi bu ñu sañoon su ngeen wootee yéen ñëpp da ngeen ñuy jot ala kulli xaal waaye ligne bi moom xat ñu ciy jégalu waaw ligne bee bari jafe-jafe rek waaye amaana Euh, ñu jégalu fas yéene ziara mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi ñu ngi ziara sunu xarit yi sunu kóllëre yi sunu am di jàmm yi soppe yi ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara Adja Soxna Ba Adja Amati Ba Malick Ba Ndiku Fall Adama Ndiaye Mansour Sarr Maam Lisun Eh, di ziara ba tey Bachir Ba ci Mauritanie Thiané Diagne eh, Kémo Jaxa bi Alaaji Jaxa Mouhamadou Mbay Medina Mbay Mujibu Lay Modi Ndiaye eh, Maxataal ci Italie docteur Pouy Ami Touré Abdourahmane Mbacké Fadima Tall Rose ci France ñu ngi koy ziara bu baax ak Elisabeth Sagna monsieur Sagna Salisem ñu ngi koy ziara ak waa këram yëpp ci ca cinquième euh, ñoom ñëpp waa ñoom salisem ak njabootam ñu ngi koy ziyaara bu baax euh, di ziyaara bintu ñang aja euh, asugay mbooro fàttewuñ leen abbas gajaga awa jaw fàttewuñ leen fatou kinne yaali ak soxnaam roqeetu joof roqeetu joof yoof ndëngaan ñu ngi koy ziyaara bu baax daawuda dia di nekk ci HLM bu bu Dakar ñu ngi koy ziara ak Khadija ak Jibi ñoom ñëpp fàttewa leen Omar Konaté ñu ngi koy ziara bu baax Pape Galaba Dia ñu ngi koy ziara bu baax a baax a baax eh, Cheikh Mbacke Baaru Faddilu di ci Touba ñu ngi koy ziara bu baax sunu xarit sunu kóllëre di ziara soxnaam Adja Fatou Silla di ziara maam Awa Mbacke ñoom ñëpp fàttewuñ leen ala kulli xaal Euh, di ziare Adja Mati Diaw cité des magistrats Mamadou Ndour ñu ngi koy ziare di ko ñaanal yàlla Madiagne Gueye ci Italie euh, Sali Sané Castor ñu ngi koy ziare bu baax ci Rufisque fàttewuñu ñoom ñëpp incha allahu euh, di ñaan yàlla sunu couleur yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne bàcc silla ñu ngi koy ziare moom it bu baax ci Italie di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. yal na yàlla tàppe xool yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wajhillaahil karim allahumma rabbi ya ilahi ya awwal ya axir ya zahir ya batin ya man huwa bi kulli shay'in alim ya rabbi ya ilahi la yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika ya man ismuhu la yunsa wa nuuruhu la yudfa wa mulkuhu la yaxuul wa arshuhu la yazuulu wa kursiyuhu la yataharrak yaa man laa yantahi ilayhi basaru naadirin fi majdi jabaruti yaa man laa yudrikuhu al-uqulu wala al-absar yaa man huwa rabbu samawati wal ard laa tugayyib ilahi rajaa'i wa rajaa'ana wa rajaa'ahum rajaa'a jamii al-muslimin allahumma rabbi laa tugayyib rajaa'i wa rajaa'ana wa rajaa'ahum wa rajaa'a jamii al-muslimin bi barakati sayyidina wa nabiyyina wa habibika wa rasulika muhammad wa salli alayhi salaatan taftah lana biha abwaaba rida ilahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba charri wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir subhana rabbika rabbi alizzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin